Soutenons la Dara Gustave Alunsal en envoyant Ali Imran au 26 26 1. Ali Imran au 26 26 1. Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci wàllu xarlew seen mbokk Alioune Badara su Sud seen rajo ci seen jotaay yi tafsir nañ defal bés bu jot waxtu wi dellu si na ci kàttanu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si. ngeen ci ànd seen mbokk Alioune sal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 bu ñu ci génnee incha allah dem ca saar yi nga xam ne ñooy tuut tànk yi tabarakallahu saar yii nag nga xam ne ku doon ko daan dal alquran day tàmbale ci suuf jëm si ci nun fii nu nekk moo waral ahkaam yeeg yooyu am ci solo lool muy àttee ci nekk ak njàngale mi ci nekk waaye ni ñu koy baaxu ci defee mooy jàng aaya door ñëw ci jëm ko firi ak jëm ko tekki aoudu billahi min alsheitan arrajim qalat alacrabu amanna qul lam tuminuu walakin qulu aslamna walamma yadxuli alimaanu fi qulubikum wa in tutiicu allaha wa rasulahu laa yalidkum min acmaalikum shay'a inna allaha xafurun rahim innama almuminuuna alladina aamanuu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabuu آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا wa fi lqabri munisa wa fi lqiyaamati shafiica wa ala siraati nuura wa ila aljannati rafiqa wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi bu jël siwaat yàlla ñu fi fekk mbokk yi kon araab yi ñoo ñëw ci yonent ba ne ko aman na yàlla ne yonent bi nee leen lam tu'minu lam tu'minu yéen kay fi ngeen toll mooy xooloo aslam na nu jàng nag kon imaan googu moom nu mu demee kon ok ci imaan googu nu mu demee ci la ñu tolloon ba gis ne imaan du aw làmmiñ moo koy wax waaye borom risaala la mu waxoon rek imaan xol da koy fas làmmiñ wax ko cër jëfe ko ñett ñi bu ci amee ku jëfewul ab ab ab imaan amut waaw imaan amut xaji abbas sàll rahmatullahi alayhi wa radi anhu wax ne charte mooy buñ koy misaalum ndaw ku ndaw mooy lii waral ñu mën a ataaya nee na dañuy am sawara ndox warga waaw yooyu munta ñàkk ci ataaya waaw mu ngoog imaan gi itam loolu tax sunu borom wax nu loolu ñu tolloon ci imaan googu lu muy ëmb bu doonub saako luy ne ci biir imaan googu bu doonub saako luy ne ci biir bu doon ab kees lan mooy ne ci biir bu doon ab lan mooy ne ci biir maanaam daal kon imaan googu lan la ëmb waaw imaan googu nga xam ne moom la borom bi bëgg ci ñun dafay ëmb nga i nga am imaan ci ne yàlla ku am la bu ñaareel ba nga gëm ne yàlla moom dong ngay yàlla yàlla moom dong ngay yàlla wa waaxidun maa in lahu min thani waaw farka la boo gëmee ne moom dong ngay yàlla nga gëm matam gi matam gi mat sëkk moom la yàlla def mbokk yi foofu lañ tegoon sunu baaraam ci wane matug yàlla gi subhaanahu wa waaw te ñu ñëw ci al imaanu bin nubuwaat gëm yàlla day aajowoo nga gëm an nubuwaat mooy nga gëm yónnent yi mu yónni nga gëm ne moo leen yónni waaw warta yéeme nag ba tax nit ñi di weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam waaw loolu warta nekk lu yéeme yonent yi yonent bu yàlla mas yónni ci saw xeet ñi am sens dañ koy gëm ña ñàkk sens te bari lool ñoo koy weddi waaw loolu moo ma dox ba mu yónnee benn yonent bu ñu wax nuhun alayhi salaam di koy ne àggal ci pénc ma nga waxal ma leen yi may tere waxal ma leen yi may digle nuhun daal sol aw dàllam ñëw ci pénc ma waaw nuhun sol aw dàllam ñëw ci pénc ma ba tax pénc mi daf ci am cër boo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko ci am cër boo xam ne sëriñ si dañ ko ci am moo tax bu bu jàdd jàdd amee ñoom la ko yàlla laaj subhanahu wa taala waaw bu jàdd jàdd amee moom la ko yàlla laaj yaa qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballiqukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa aclamu min allahi ma la taalamuun sadaxlaw la si di sànnooxul ñëw ca pénc ma waaw ak bu jekk ba ak doxin wu ëmbaale fulla wa waaw ak bu wegu wa mag ñi ca pénc ma ña ko ca mag moo ëpp ñam ca mag mu tax ci benn nett li sunu borom ne daf leen woo ba noppi ñu ne ko nun day amoon nañ yaakaar ci yow ndeysaan def na leen yéen sama nit ñi laysa bi dolaala dara jàpp ma réeru ma dofuma dara rajutuma lu wokkutub dërëm wokku ma li ma leen di mooy yàlla ma yónni ci yéen rabbul alamina moo ma yónni ci yéen mu bëgg ma jot li leen mboolem risalaatam yi waaw te it man day rax ca dolli dama leen a bëgg laa biir ndax dama xam ci yàlla lu ngeen xamul muy yéen sax ndax yàlla tànn kenn ci suñu biir yëbal ko ci suñu biir ndax loolu war naa war ndax loolu war naa yéeme ndax loolu war naa yéeme loolu war te yéeme te itam war ngeen cee def seen jom jëpp su ko defee ñu yërëm leen fii ci àdduna bu ëllëgee ñu yërëm leen seet waaw sootul aaraaf la ko wax aaya fukk ak ñaar kon li li jaaxal nit nag mooy ko ne ci biiram maanaam nit ku yéen a bokk quartier wala yéen a bokk dëkk wala nangam ak nangam nga jóg bëgg koo wax bala laa gëm seet lu ko daj tabarkàlla lu ne danga nga ko daj waaw mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot maa ngi ci suratul xujuraat ay quatorze maa ngi ci al imaanu bin nubuwaat gëm ne yàlla am na ñu mu yónni ñu ñëw di waar nit ñi waaw akaana linnaasi an awxaynaa ila rajulin minhum an anzir innaasa an anzir innaasa ann lahum qadama sidqin inda rabbihim qaala alkaafiruuna in haaza la saaxirun mubiin cay yàlla mu ne risaala ak yonent bii di muhammadun waa Makka ne ko bu yàlla doon yónni bàyyi galaay mii ci bopp koñ bi wala bàyyi moroxo ja mii ci biir dëkk bi ñaar ñi lay yónni yàlla mu ne ndax loolu war naa yéeme ñu tànn kenn ci xeet wi yebal ko ci biir xeet wi ne ko waar leen bégalal ñi gëm nga xam ne ñi gëm am nañu xadama sidduq waaw fa seen borom ku gëmul ñoo lay jëkk fa seen borom yéefari daal ne inna haada kii di wax nii ña weddi ne la saaxirun ab jabarkat la mubiin bu mokkal li muy def loolu lañ waxoon alayhi salaatu wasalaam mbokk yi imaan googu nag nga xam ne mooy jural nit ki hidaaya imaan googu nga xam ne mooy jural nit ki hidaaya te hidaaya moo dig njub moo dig njub de ba tax boroom xam-xam yi ba ñuy xàjjale hidaaya di ko def ay pàcc-pàcc dañu daa am bu tudd alhidaaya alfitriya alkawniya waaw daf ci am ulama yi xool ko gis ne am na waaw ndax picc yi picc mi nga dëkkal day xëy dem liggéeyi bu ngoonee ku ne ko fii nga dëkkoon kañ gi nga xam ne bu guddee ba ni ñu nelaw mu jóg di liggéey balaa bëtt set mu tëdd ku ne ko liggéey guddi nga war a liggéey waaw su su ñël bi nga xam ne day moom tam re day jóg wuute reer bu reeree ba suur dellu si këram ku ne ko foofu la nekk kiy wax loolu mooy borom bi subhanahu wa taala jalla jalaaluhu azza kamaalu kon gëm ne mi ngi fi loolu gëm ne moo yónni yonent yi dafa bokk ci yi nga xam ne mooy tax nit tege ci moom hidaaya googu nag kon lay insaan du nit dong ko moom ngeen baal ma waaye gunóor yeeg fas yeeg xar yeeg nag yeeg ba ku ci ne yaa ngi yaa ngi sa ila nnaxli an ittaxidi min aljibaali buyuuta wa min alshajari wa mimma yaarisuun waaw waaw suñu borom ne yemb yemb yow laay waxal mu ne ko labbayka mu ne ko may naa la montagne yi lëmi garab yi nga def fa sa liggéey waaw nga def sa liggéey liggéeyam mooy liggéey lem waaye nag doyewutoon lem gi liggéey jox nit ñi dafa am lu muy doyee li muy liggéey xam naa ne tabarkàlla mu ne ko mu ne mu ne sajar garab goo gis mu am ëm lëm may naa la nga lem ca wa ma yaarisuun fépp foo xam ne it doomu aadama dafa def dara wala nga gis ne mën nga faa def dara may naa la nga def ko fa yemb la yàlla waxoon loolu yemb doon koo xam ne moom tam kon yàlla wax yu na ko mu dégg ko moo tax soo seetloo yemb day glissé buy naaw jëm kaw jëm suuf ni mu koy defee noonu nga xam ne mooy tax mu xam fi mu jëm tabarkalla kon kaw ni bi yëpp gàncax geeg fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy ñépp kenn ku ci nekk yàlla bi mu la wax yoo yaa nga ca la nga nekk te di ko def boo weesoo xar yeeg nag yeeg bëy yi ñëw ci ponkal mi ñu tiim ñu koy wax jant bi ponkal mi ñu koy wax jant bi ak su demee ki ñu wax guddi gi isan aoudu billahi min alsheitan arrajim la shamsu yanbaqi laha an tudrika alqamara wala leylu sabiqu nnahaar wa kullum fi falakin yasbaxuun lisaan yàlla nee na jant bi dama ko jox ndigal ne ko bul dab weer wi ndax boo ko dabee da ngeen fenqaloo te su boobaa àdduna tukki te àdduna tukkeegul léegi jant bi lu mu def la shams yambaqi laa an tudrikal xamar ne ko duma ko dab mukk lu dul mu jot wa jumi ashamsu wal xamar bu loolu jotee nag ginnaaw yaa nuy boole nu booloo adduna tukki waaye fi mu nekk nii du ndaje mukk mag moom waaw loolu tax alxuraan dañu nettali keroog ba Moussa taxawee Firawna laanatullahi alayhi daal di koy laaj kuy boromam ndax sa Firaw Firawna yàgg naa laaj Moussa kuy sa borom lu mu ko wax qaala fa man rabbukuma ya muusa qaala rabbuna alladi actaa kulla cheyin xalqahu summa hada waaw mu ne ko sama borom mooy nga xam ne lenn lu nekk moo jox bindam waaye lu mu bind lu nekk moo ko teg ciw yoonam waaw sabisma rabbikal ala firndil la ci ndeysaan benn martabaak nun bu am solo ci wàllu njub muy martabatu al fitra euh, al kawniya wala al hidaaya al fitriya al kawniya mooy ci àdduna si mbokk yi teeñ sax teeñ xoolal liggéeyu teeñ xoolal liggéeyu yoo mellantaan picc lépp sunu borom moo ko sant loolu muy def martabab ñaareel bi martabab ñaareel bi mooy martabab yëg-yëg martabab yëg-yëg boo xam ne bi nopp daf cay ànd basor am ca fóon ak ñam am ca am ci yeneen yoo xam ne lu mel ni xiif lu mel ni mar lu mel ni mbég ak njàqare martaba bi nee nañu moo gën a kawe bu njëkk bi ma doon wax ndax fa fa fiiha nawun min al intibaar ndax lii nga xam ne mooy nopp bët bakkan mi xeeñtu biir mi xiif di mar euh, xel mi bëgg ak a mer martaba boobu dafa am sol lool waaw mu ngoog lu ama am solo la ci nit moo tax yooyu bu fekkee te amu ca dara amu ca lenn dugg ca martaba boobu yóbbu nit ki ci mu gëm ne yàlla am na moo yónni yonent lu lu luy gaaw lay doon martabaam ñetteel bi mooy martabatu hidaayatul aqli nit koo xam ne kii a ko wammat ba ne ko yàlla gi nii Omar ibnu Xataab looloo ko ja du andi bu ibnu Affan looloo ko andi Ali ibnu Abi Talib karamallahu wajhu radia anhu looloo ko andi gaa yooyu nga xam ne ñoo daroon yonent bi tabarakallahu ñoo ca jëfandikoo seen yàggut ñu ne ko yàlla la jëfandikoo seen xel yàggut ñu ne ko yàlla la yónni waaw yàlla ko yónni de boobu martabatu al aql la moo tax lislaam di bañ ko foye xelum nit ndax nit xel mi daf dafa bokk ci li koy omat bu yët ko yàlla bu xel ma yàqoo bu ko ommatee ci sën ba la ko jëmale wala ci ginnaaw kër ga waaw barkal martabam ñeenteel bi ci alhidaaya te ñun ñëpp ay wax ihdina siraatal mustaqim martaba boobu mooy martabatu hidaayatil wahyi wala wahyi waaw ndax wahyu mooy corriger la xel njuumte yi koy bett waaw wax yu mooy corrigeel xel njuumte yi koy bett hmm? waaw wax yu mooy rëddal defe-defe yi nekk ci cër yi ba ñu dog yoon wa ànd ñoom ñépp yi dem muy wax yoo xel bu xel demee moom dong du ñeme ci yoon wi waaw tabarkàlla aoudu billahi min alsheitan arrajim kaana annaasu ummatan waxida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس li yaxkuma bayna annaasi fii ma xtalafuu fii wa ma xtalafa fiihi illa allazina uutuuhu min bacdi ma jaa'athum albayinaatu baxyan baynahum fahada allahu allazina aamanuu lima xtalafuu fiihi min alxaq bi idnihi wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim waaw waaw nee na nit ñi nee na nit ñi nee na nit ñi eh, nee na nit ñi dañoo nekkoon wenn xeet foofa la nit ñi doxaat jëm nit ñi dañoo nekkoon wenn xeet la ñu nekkoon neexul borom bi subhanahu wa mu yónni ay yónent ba nit ñi nekkee xeet nag te yónnee guñu yónent foofa ñu nekkoon fële nit ñi jëm boo seetloo adduna si yëpp dafa am benn système bu fiy dox bu ñu tuddee nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial wala mondialisation professeur bëgg a defaat nit ñi ummatan waaxida te buñ defee nit ñi ummatan waaxida du ñuy bëgg ñun ñëpp nu ànd ci li umma waaxida boobu ànd benn peuple boo xam ne lañuy bëgg mooy ñu nangu li li diine ji di wax lépp ñu nangoo ko ci diine teg diine fële te dem waaw nga xam ne lu mel ni way yeeg yooyu lañ sa tëral lañ wax ne moo war a jàll ñoo ni ci àdduna lu ñuy wax genre andi ci lu ñuy wax parité waaw émancipation la liberté et la démocratie baat yooyu Serigne Cheikh waxoon moom la mën a gote firi ba léegi Serigne Cheikh men waaw allahu akbar mu ne baat yooyu moom <laughs> ah waaw waaye ñaari ki ko tëral moo la koy firile ni mu bëggee nga déggee ko noonu bi àdduna nekkee nag ñëpp jaxas ñëpp ànd ci lenn ca la yàlla yónnee yónent ya moo tax àdduna sii tey ndëgër laay googu la boroom xam-xam yi waroon a am ña ca kaw ci diggante bi ñu ci suuf ñoom ñëpp nu yëg ne umma waaxida jëm benn jubluwaay bu bokk ci umma waaxida moo taxoon yàlla yónni nabiyuuna mu wa mundirin waaw mu yónni yónent yi mubashirina ñuy tànn ci xeet wi ñi nangu ne yàllaa leen yónni ñu bégal leen ne bu ngeen nangoo ne yàllaa nu yónni yàlla moo leen denc lii ak lii ak lii mundirin mooy ñi nga xam wa ak ñi xuppe mooy ñi nanguwut ne yàllaa yónni góor yii ñoom tam ñu xupp leen ne ku nanguut a topp li ñuy woote lii moo lay dal ak lii ak lii kon ay sanction lay doon ak i neexal waaw ay lay doon ak i neexal defe naa neexal yi mooy euh, lii jiitu ndax ñu ñoo gëm waaw ay récompense lañuy doon bu fekkee baat boobu jub na bu jubut ngeen def ci baat bi ci jub rek ñu dem professeur Jibi lijjanti bi mu yónnee yonent dafa wàcce ci ñoom ab téere mu yàlla mu ne waaw lu tax waxut wa anzala maahumul kutub mu ne wa anzala maahum alkitab te alkitab benn téere lay tekki mooy téere yàlla yónni woon yépp benn idéologie lañ doon samp di ko doxal ñoom téere yépp saa boo duggee ci téere gis mu wuuteeg morom ja wuuteeg morom yëgal ni téere boobu du original est-ce que sax photocopie la ça dépend waaye daal ba yàlla yónnee nooxun ba lim yó ba nim yónnee njool màkka sallallahu alayhi wa téere yëpp benn la woon boo ko gisee ci yonent yi ku ñëw naan ubudullah ma lakum min ilaahin xayru loolu la yonent yëpp di wax tabarakàllah waaw boo noppee nag jubbanti saw xeet mu yàlla lu tax nga yónni téere bi mu ne li yaxkuma bayna annaasi fi maxtalafoo fii damaa bëgg bu werante amee bu yet jóg bu jaasi jóg bu kenn yooxu bu kenn bañ morom de damaa bëgg leen àtte li xew seen diggante te li leen di àtte bu fekkee code pénal am na alxuraan mii lay doon monsieur le commissaire bu fekkee code pénal am na waaw alxuraan mii lay doon kon pénal mboolem koo xam ne kii wax nga ne laa ilaha illallah wax nga ne muhammad rasulullah kon mu wuti bu mu am mu ne ñi nga xam ne nag amoon nañu téere ñi nga xam ne amoon nañu téere waaw intellectuel yi <coughs> ahlul kitaab waaw ñoo yoroon tawraat ak injil wuute wuñ ca lu dul ginnaaw bi leen bu bees bii dikkalee muy alxuraanul karim waaw lu ko waral ah baxyan baynahum waaw li ko waral mooy njub goo xam ne jàpp nga ne boo ko toppee ñàkk la nga njëkk am da nga naan li nga mujj am toogal ndax wolof dax jàppal la nga njëkk siin daal ne bopp baa nga waaw yàlla daal di jubal ñu nga xam ne amanu lañu ñu wuute ñu gis dëgg ga waaw la ñu wuute dëgg ga leer nañ bi it nii yàlla nag mooy tànn ku ko neex ci mbindeef yi teg la ci njub teg la ci ila sirati mustaqim suratu albaqara lu la xewe woon tabaarakallaahu lañ ko waxoon aaya euh, ñaari téeméer ak fukk ak ñett su fekkee jumuma waaw kon yàlla dafa bëgg ñu gëm ne yónni na ay yónent wax na ko foofu baamtu na ko ay yoon yoon nag baamtu na ko ay yoon yoon bëgg ñu gëm ne yónni na ay yonent waaw aoudu billahi min alsheitan arrajim laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna maahum alkitaba walmizana liyaquuma annaasu bilqist ndeysaan mu ne yónni naa ay ndaw yónni naa ay ndaw ci ñu leeralal waa pénc mi lu leen di jële ci seen jafe-jafe yi ñu wàcce ab téere ñu yor téere booba waaye ma wàcce misaan ndeysaan ma wàcce misaan bu ko doon firi danaa ma wàcce misaan balance pesé waaye yàlla wàcce al misaan muy équilibre yàlla dafa bëgg àdduna si équilibre mu ne nit ñi daal di taxaw bil qist ci ak maanu li yaqooma naasu bil qist waaw ci ak maanu yàlla nga ko junj ca suratul xadiid su ma jumul waaw rusulam mubashirina wa munzirin li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun bacda rusul waaw waaw ndax nit ñi su ëllëgee ñu am wenn lay dootuñu am lenn lu ñuy wax waaw duñu am aw lay fa yàlla tabaaraka taala yónni gim yónni yónent yi nag mooy dox diggante mbir meeg lool mbokk yi al imaanu bi nubuwaat wa risaala yatadammanu fi xanaayaahu maani adida waaw yàlla yónni gim yónni yónent dafa ëmb ci biiram ay maanaa yu bari boo ci tànnee ñett mu xej ci jataay bi yónni gi yàlla yónni yónent la ca jiitu mooy xikma baaliga waaw mooy ku ko seetlu dëgg da nga xam ne looloo am moo war a am waaye yërmandem jaatu ji ndax bu ñu fi bàyyiwoon ñu tëñëx tëñëx rek ku ne la nga jàpp ne mooy bégloo yàlla nga ne ca mën nañoo àgg yuuxu jibe fuñ ko foogiwul waaye xerañte gi nekk ci yàlla yërmandu jaatu ji nekk ci yàlla atteem yu xereñ yi waaw atteem yu xereñ yi waaw yërëm ji muy yërëm ëllëg fële ci àllaaxira yàlla na ca dugg waaw tax mu yónnee ñu ay yónent isaan aoudu billahi min alsheytan rajim ayaxsabu al insanu an suda mu ne ndax nit dafa defe ne dama koy indi kaw suuf rek bàyyi ko nii doo ñu bàyyi nii ya allah moo tax ngay gis penc mu ne di wut ay constitution di wut ay règlement intérieur di wut ay yooyu bëgg ca tënk nit ñi nu am téere bu mel ni alxuraan tënkal nu ko waaw aouzu billahi min alsheytan rajim wa ma kunna muazzibina xatta nabxasa rasula yàlla nee na duma kenn te joxu ko avertissement waaw gis nga cey <laughs> wàjj léeg-léeg ñuy jëlee yi ci mbedd mi te xatal mbedd mi ñu koy jëlee ci mbedd mi ah, sunu borom nee na moom balaa duma aw nit day yebal kenn moo tax ñuy def loolu di bind aw këyit yët ko ña fa nekk fàtte naa nu këyit wu tudd jox leen ko ne leen bis sàngam na leen fekk jóg waaw dafa bis bu ñëwee gaa yi jóg bu fekkee fi nga toogoon daa am këyit woo xam ne titre foncier liñ ko tudde mooy yaa ko moom ku la fa jële wut fu mu la yóbbu bu fekkee fi nga toogoon du loo moom buur a ko moom buur day la jox ma sama yëf jamono ji ñu yokk jumaay sallallahu alayhi wa jee néeg ya jege woon dañ leen a xaj dindi leen kaaba gi fi nekk ñi ngi def noonu mboolem hôtel yi ko jege dañ leen di yëkkati ci Madina am na fa ba nit ñi fay dem xam nañ ne am nay jamono ñu dem fa fekk ay ay kër ay hôtel waaye dañoo siwaat fekk hôtel yooyee ñu màbb leen tasaare leen tabarkàlla la ca la ca tege ñu yokk ko ci jumaa alayhi salaatu salaam ku ñëw sa kër nag fekk na titre foncier la yow léegi yaa moom kër gi buur bi dafay wax ne kër gi loo ci defoon nga wax mu jox la ko tegal la ca buñ xaajoon prix ba ñetti xaaj mu tegal la ca benn ba ba noppi ne la abal nañ la ko nag fii baa ngay jël yi nga fi soxla yëpp waaw waaw bu ñaareel bi ci loolu nga xam ne moom la an nubuwaat war a ëmb mooy gëm ne diina ji jenn la fa yàlla subhanahu nga gëm ne diine ji ci mboolem place yi mu nekk ci mboolem temps yi mu nekk waaxidun laa yutaxayar su fekkee wuute am na fa rek ci nit ñi la waaye du ci téere lépp benn la woon qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isxaaqa wa yaquba wal asbaat wa ma utiya muusa wa isa wa maa uutiya annabiyuuna min rabbihim laa nufayri laa nufarriqu bayna ahadin minhum wa nax wa naxnu lahu muslimuun waaw waaw yàlla nee na xooloo wax leen man miy wax ak yéen ñi ñuy déglu wax leen te wax ja bañ a nekk wax ju yow ci làmmiñ da ngeen naan amanna billahi gëm nañ yàlla te góorgóorlu ci ba mu wér wa ma unzila ilayna ak alxuraan ji waaw te góorgóorlu ci ba imaan nga wér gëm nañ yàlla gëm nañ li ñu wàcc ci ñun muy alxuraan ji muy lu wér ngeen ne gëm nañ lañ wàcce woon ci Ibrahima lañ wàcce woon ci Ismaayil lañ wàcce woon ci Ishaq lañ wàcc yoon ci Yaqub wal asbaab ak lañ wàcce woon ca sëti ñooñee loolu lépp boole nañ ko gëm gëm nañu lañ joxoon Muusa gëm nañu lañ joxoon Isa moo lu tax gëm nañu waxut wa maa unzila ila Muusa xanaa mu ne wa maa utiya mooy Muusa bi ko jox les les dix commandement ni mu ko ko joxee dafa bokkut ak ni téere doon wàcce waaw les dix les dix commandements bokkut waaw isa ibnu maryama moom tam liñ wàccee ci moom liñ ko jox ak lee bokkut mu ne lañ joxoon yonent ya min rabbihim waaw du nu ci tàqale benn ñu yonent ya ñoom ñépp nu gëm leen gëm seen téere ya waaye ci ijmaal maanaam gëm ne wàcce woon ci ñoom ay téere waaye nag ndax téere yi ñu ngi ci teg loxo ba léegi déedéet waaye nan gëm ne mi ngi fi woon waaw nan gëm ne mi ngi foon léeg-léeg da nga gis téere bu ñu ne la bii injil la am na sax bu ñu la ne bii zabur la waaye daal suufu fi ibrahima ak suufu fi moussa ne la ñu ngi nii loolu moom man man naa mën naa jafe wax la it ne mi ngi nii nga tàmbale ko page ba dernier page nga gis lépp tege ci loolu tam léeg-léeg nga def ko ci mu xaw a am wuuteeg euh, original ba loolu nag mi ngi topp ñi nga xam ne ñoo ne ci pénc mi tey saytu lu mel noonu waaw waaye alxuraan ji moom yàllaa ko def ba nga xam ne ko ci yokk ak masque fi ne man mii di di di di di firi nii léeg-léeg ma damm masque waaw waaw léeg-léeg ma damm masque teg ko ca kaw mbaa teg ko ci suuf yàlla ba mu yàq maanaam bi rek <laughs> waaw kenn mësu koo gis waaw ndax ndax yombul waaw aouzu billahi min shara'a lakum min addiini maa wassaa bihi nuuxa walladi awxaynaa ilayk wa maa awxaynaa bihi ilaa ibrahima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina wala tatafarraquu fiih kabura ala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh allahu yajtabi ilayhi man yashaahu seen baaraam foofu ñu ñaan yàlla may ñu ba te ñu weesu ko ñu ñëw jéem a firi laay jooju nga xam ne ci la ñu daaneele jërë ngeen jëf yal na yàlla sàmm nu sàmm leen ki nekk ci wàllu xarale moo seen mbokku Alioune Badara Socé ngeen àndoon tafsir beeg seen mbokk Alioune sal yal na yàlla sàmm nu yal na yàlla aar nu penc maa ngi nii tabarakallahu mbokk yi borom bi subhanahu wa yii mu nu yónnee di alquranul karim di téere bii nga xam ne noo ngi ci biir koor gi mësunoo woore koor gu mel nii ci alquranul karim koor gu saf saf ak alquran waaw koor gu saf sàpp ak alxuraan ñu dem grand théâtre concours fa ko ko raw ci alxuraan ji waaw ngoone sa jógee Louga tabarkàlla raw ci kere ba mu jàngee ba mu yàgg mu wàccee baat bi ndeysaan ñun ñëpp nu xam ma wax la ko tey waaw tabarkàlla bu ëllëgee ñun ñëpp nu war a dem ca dellu grand théâtre seet Sénégal gii ku fi dàq bind mbindum alxuraan booleeg mokkal di bind te doo gestu di bind te doo gestu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sponsor yi wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu